waaw asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di ziar bu baax a baax ah, di wax ngeen ni wii di abonné te di activer cloche bi ndax ah, vidéo bu ñu dugal ah, di ngeen bokk ci ñu ko njëkk a gis wéy leen di like di commenter ko partager loolu ngeen ñu mën a jàppale bu baax a baax ñu ñëw ci suñu première séance d'entraînement bu suñu gaynde yi fële France di waajal ngir waajal seen match diggante ñoom ak Cameroun tey jii.

Youssouf Sabaly nous ñëpp teewoon les séance d'entraînement tay bi donc tey gaynde yi ñëw nañ def comme ni nga daan defee def euh, donc euh, quelque comme ni nga quelque en tactique donc après euh, ñu def ay yoo xamante ne de di permettre contre Cameroun surtout liggéey ci coupé arrêté yi au niveau intensité parce que ku ne xam ne Sénégal ak Cameroun intensité bi force dafay am donc aujourd'hui gis nañ loolu ci entraînement donc vous leen di like di commenter jaa